te ne moom la ñuy euh, waxtaanee di investiture président Ousmane Sonko fële ca euh, Italie ah, ñu daal di dajale nag ci ay koppar yu takku toll ci cent millions daal di koy jagleel. Euh, lii di élection euh, présidentielle yu 2024 bu candidat bii di Ousmane Sonko bu loolu weesoo aussi danañu waxtaanee situation ba nga xamante ne euh, moo am ca UCAD ak SAES e mi nga xam ne dafa décrété deux jours de grève ak arrestation wu Amadou Ba bu Pastef ginnaaw bi nga xamante ne génn na ci émission bu Ndumbelaan fële ca Sen TV dinañ ci ñëw ak aussi la situation de de Ousmane Sonko actuellement. son état de santé on va en parler incha allah alors comme yaa ko wax léegi mami nañ ñëw ci présidentielle bu 2024 ak investiture investiture président Ousmane Sonko fële ca Italie ak 100 millions yi nga xam ne waa Italie dajale nañ ko. ah man de Ngalla. Mhm. maa ngi nuyu au passage euh, Assane Ndiaye bu Codcat yi mhm. nga xam ne mënu baaxee image yi. Mhm. Euh, bi boo mënee illustré waale en même temps image yi ndax xam naa ne teg nga ko sax laata ñuy tàmbali. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, waaye nabu koor waa euh, Pastef bu Italie. Guy mm-hmm. Marius Sagna dafa faa demoon. ndax xam nga ne gii mu ngi def benn tournée bu am solo ci bitim réew. waaw démb nag euh, sama waa ji Njaay ne ma démb xam nga ñaata la patriote yi dajale Italie ma ne ko ah. mu ne ma 100 millions man bi may njëkk a dégg 5 millions laa déggoon de man te maa ngay aal maa ngi naan ko waa ma yéen moom luy seen problème mu ne ma yow maanaam di ko déggoo li ma la wax de dama ne la cent million de francs <laughs> CFA moom la ñu dajale image yi moom la ñuy. may chèque bi de préférence chèque bi. waaw waaw mais mais mais mais mais patriotes yi yéen ñii daal foowuñu nag xam nga nag euh, ngaa la dama lay wax. Euh, baat bi baat wolof bi ñu koy waxee borom borom borom baat du xeex ak borom. borom borom càkk du xeex ak borom baatu neen jërëjëf. lu xaw ma maga la yar xaw ma dinaa vérifié waat sa ak sa carte yaa ngi dégg yéen patriotes yi laa ilaha illallah waa xam xam xam nga lii moo tax xam nga lii moo tax ñoom ñuy déranger nit ñi dañuy waxante dëgg yow ah, mës ah. ngaa gis benn politicien ci réew mi ci jamono bi ak fi ñu toll nii am na benn acteur politique buy jëm présidentiel bu nu dajale moom bu ni mel est-ce que yow mës ngeen koo gis Sénégal bu mu dee Sénégal ba tey ngaa la te xam naa ne yaa ma mag sa te suñu aramtara kay fay yow yàgg nga du aujourd'hui yi nga nee yow bi nga neewee ba tey ndax yow mës ngaa gis li ni mel adduna ah, du nettali woon naa la euh, euh, ci ci législative yi xawma su ma juumulee ci euh, local yi politicien bu mag bi defoon kañot bi Sénégal yi di ko ko bàyyi xale yi di dugal fukki dërëm dërëm juróom ñaar dërëm. déedéet ka kañot moom bu ñu ko loolu nettali woon naa la ko. waaw man daloon na ma fi dama doon kañot kañot lu ñu ma yónnee ay dërëm. <laughs> ay ñeme ko kaliwaat ay juróom mhm. yooyu lañ ma doon yónnee dama lay wax ne la fii bu fi kenn kañot kañot lu. nabu te bu fi benn politicien sonko sonko lu leer ni di laa lay wax ñii danoo fow te nagam waa Italie ñoo def lii man gisuma yeneen li moo tax nag diaspora yéen li di ngeen yàgg di énervé ñi ñoom nag mosuma leen gis ñu def cagnotte di di récolter moins de cent millions ah waaw yàlla baax na kon c'est tellement bizarre ñoom ah. ay ay ay yu mag rek xam nga am na yu ñu fi defoon yu mag avant coow lu mag li doon doon fi am trois cent et quelques millions trois cent trente trois million si je ma trompe pas ñu ñu récolté woon ko ci ay fonds ñu ne déet ngeen ñëwati waa ñoom fu ñu jëlee xaalis boobu ma mi nag ma mi nag ah non ñoom problème yaa ngi soog a commencé. déedéet c'est que ñoom ñoom moom gaa xam nga au delà de de de man je pense que affaire bi. Mhm. pour ñoom nekkatul sa affaire affaire xaalis. combat lañ ko def. Mhm. combat personnel lañ ko def et puis question d'engagement la aussi. danoo engagé wu derrière seen candidat et loolu xam nga mën nga ci gis euh, passion bu bu yaatu boo xamante ne xëy na amaan on n'a pas l'habitude de voir ça mm-hmm. au Sénégal mm-hmm. ndax ñu réew mi tàmm ñoo gis euh, en général bu élection jotee c'est le politicien mooy mooy mooy débourser ay moyens xam nga mooy mooy uti ay oto mooy ut euh, xaalisu caution leneen lu ca topp mais on n'a jamais vu une aussi grande mobilisation autour d'une seule personne benn nit boo xamante ne moo jaral ñenn ñi ñu dajale seen xaalis cotiser ba jox montant bu ni mel cent millions c'est quand même quelque chose c'est de l'argent c'est énorme euh, bu ñu ko mënee dajale benn bëccëg en plus loolu moom mooy lay wan ne ñii ñi xëy na degré d'engagement bi nga xamante ne am nañu ko wax naa ko démb je pense que xam laa ko doon waxtaanee sama waa kër mën na ko liy yëkkati réew tout le monde tout le monde est patriote tout le monde est de wax a wax parce pastef googu ci boppam pastef gi ñuy wane. Mhm. ci seen i jëf dafa wuyoo carrément seen seen turu seen turu parti. c'est extraordinaire sincèrement moi j'étais ouh bi ñu ma ko waxee tellement que j'étais choquée j'ai dit comment ça 100 <laughs> millions en une journée quand même. ci benn dëkk kese Italie ay patriotes rek dajale ko euh, ce qui veut dire que loolu bu doon élan de solidarité boo xam ne dañ ko élargir. Euh, le gars pourrait sortir avec beaucoup beaucoup beaucoup d'argent en tout cas en ce qui s'agit de sa campagne ñu ngi door a gis un leader boo xamante ne ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom ñoo koy financé euh, ñooy ànd te loolu nag jàngat la euh, surtout ci situation bi ñu toll nii parce que xëy na nit ñi mënoon nañu relâcher les bras en se disant que euh, ki nga xam ne moom la ñuy porter combat bi dafa feebar wala xëy na mais loolu dañ koy war rek ne ko quel que soit alpha ñun ñu ngi garder espoir ñu ngi garder espoir et lépp loo xamante ne soxla nga ko ci combat bi nga jëm doo ci wéet dinañ la ci mën a accompagner lecture boobu passion boobu cet amour la voué à un homme euh, je pense que lui il a il a encore plus du pain sur la planche waaw euh, charge bi ak responsabilité bi dafay gën a diis euh, et surtout war na mën a xam ne ba aujourd'hui plus que les autres jours euh, contrairement à ce que les gens disaient que xëy na peut-être ils se sentent seuls euh, ci combat bi ni mel que wéetu ci am na benn forme de de de manifestation de soutien boo xamante ne bu amee li comme li xew ca Italie waaye quand même faut dire que faut le magnifier c'est quand même extraordinaire. c'est ça euh, et puis cette mobilisation. Voilà, cette mobilisation, même pas. Mais mamie, euh, cette force-là, euh, finalement, on, on, souvent de dire mm-hmm. ex-Pastef. di di di di ci benn bërëb rek mu taxaw fa mobiliser plus de cent million ndax euh, état du Sénégal warul bàyyiwaat xel aussi parti boobu ndax bu fekkee ni euh, dissoudre nañ ko wala dindi nañ ko ba tey seeni activité ñu ngi dox waaye aussi ñu ngi continuer di mobiliser. Euh, est-ce que du ñu bàyyiwaat xel euh, décision boobu nga xam ne jël nañ ko. waaw dafay dëggal rek une chose. Mm-hmm. li muy dëggal mooy nii euh, amaana nit mën na am déci mën na am maanaam dooley jël décision wu def leen na. Mm-hmm. comme ce qui s'est passé te nu dund ko mooy la dissolution du parti. Euh, qui ne pas encore euh, acté de manière définitive parce que ñoom def déposé nañu recours donc du coup mu ngi ci yoon. Euh, tant que mu ngi ci yoon nag wax dëgg yàlla peut-être que ex bi mën nañ ko fee dugal mais dans tous les cas ex bi dafa am lu mu concerné ak lu mu concerné wul man dama jàpp ne euh, Pastef même bu fekkente ne dañ koo dindi ci kayit yi mun mënuñu koo dindi ci xol yi la preuve lii moo koy wane. Euh, aujourd'hui man su ma doon état pouvoir gis forme de d'organisation bu ni mel forme de soutien euh, forme de d'amour de passion boo xamante ne moom la une population di wan benn leader man damay tiit. parce que dafa may leer ni au moins euh, du côté de la diaspora am na benn taxawaay boo xamante ne ni euh, naa ci am njort bu baax a baax a baax. Mhm. par rapport ak élection et d'ailleurs la tendance était lancée depuis les dernières élections et depuis lors je pense que yëf yi wàccul au contraire dafa gën a yéeg dangay xool gi Marius durant sa tournée au-delà de fonds yi ak xaalis bi ñu ciy wax. fépp foo xamante ne teg na fa tànk mbooloo wuyu si nañ ko donc ce qui veut dire que nit ñi dañu koy gisee un peu à l'image de Ousmane Sonko et loolu comme je l'ai dit xëy na moom moo ko liggéey parce que dafa taxaw taxawaayu protecteur et puis taxaw taxawaayu góor depuis depuis depuis que Ousmane Sonko bu ngi nekk ci difficulté il ne l'a pas lâché autant à l'Assemblée nationale dans la rue ak fépp fu mu mënti dem mais si dafay wane rek ne nabu gis nga euh, maanaam mbir di changer bu dafa am lu bëri loo xamante ne ni parfois état sa du ko mën a contrôler on a vu que ci ay affaire Kopar Express yu ci bëri jur na ay coow arrêté na mais ba à un moment donné da ngeen wax est-ce que nit ñi amati na di dajaloowaat pour ne dañuy ut koppar goo xamante ne dañ koy jagleel Ousmane Sonko mais aujourd'hui la preuve est que xëy na nit ñi dañ doon toog xaar app bi jot wala euh, def dara jot pour que ñoom ñëpp ñu mën a unifié wu ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom seen dërëm ak seen i dërëm la ñu dajale. ba mu toll ci montant boobu. donc loolu nag li ñu ci war a jàngat mooy ne euh, il ne suffit pas tout nga li nga xam ne moom mooy parti bi. Mm-hmm. pour que nga wàññi doole ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy Ousmane Sonko ça n'a absolument rien à voir au contraire j'ai l'impression que dissolution parti bi sax. Mm-hmm. dafa tax nit ñi dañoo gën a bëgg dañoo gën a fippu. Mm-hmm. maanaam effet contraire bi la am. te nag li nekk ci biir xol yi. du yomb pour que nit dugg fa mën ko effacer gobe dindi carrément li nga xamante ne moom mooy réalité bi ñuy gis nii de par les images. Mhm. Euh, des yoo xamante ne biir Italie te leer na ma ne jóge nañu fu nekk ci biir Italie. Mhm. ñëw dajaloo mbooloo mu ni toll rek. ku mhm. ko xës ba gis rek déjà war na laa mën a tiital encore moins. fonds yi nga xamante ne moom la ñuy débloqué euh, di ko di ko jagleel ki nga xam ne moom mooy soo ko jàppale ko pour li nga xam ne moom mooy élection présidentielle yi. maintenant euh, cette forme de solidarité là. est-ce que du loolu mooy pousser souvent Euh, li nga xamante ne moom mooy étape ñuy jël yenn yenn décision yi à l'encontre de Ousmane Sonko tout en espérant que xëy na lu koy wàññi la mais au contraire je pense que lu koy gën a yokk doole la lu koy gën a kàttanal la luy tax nit ñi gën ko bëgg gën ko fonk et pare pour jox ko seen i alal parce que mhm. tout simplement ci li jëm ci élection yi xëy na amaana seen yaakaar ci moom la ko wéer yaakaaruñu ko ci keneen mhm. te wéer gi nu ko wéer ci moom mooy tax ñu ne pour nga jëm ci sa ay campagne ñun ñoo la koy financer et c'est ça qui est extraordinaire c'est ça qui n'a jamais existé au Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf mam euh, Mamy am na léegi ñu wax ci commentaire yi ne ma ba pare dañuy fay pour dugg ci biir ñuy fay 10 euros pour dugg ci biir yaa sa liggéey rafet na. sa liggéey rafet na ajarat nii lañ lay bàyyee mënaluñ la dara dara dara dara dara ki jóge jóge Nicaragua sax fi mu toll nii moo la gën a miin miin miin miin miin bërëb bi waaye <laughs> baax na ñëppoo nga muñ rek li mën a wax yëpp doo mën a tontu alors euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, ajaratu le temps ñu euh, defar micro ma vite fait rek ñu daal di mën a dugg ci yeneen ponk yi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee waaye beneen bi de bëgg naa xam waa Prod vingt 24 waa Prod 4 TV lan lañ doon reetaan yéen joxe seen xaalis sa pare di reetaan. ah may wax kii di ma leeralal nee na dañuy booy dugg ci biir saal bi dangay ngay fay 10 euros mami bu weesoo joxe sa xaalis ba pare da fay 10 euros. waaw mais da ko jaral. Mhm. da ko jaral de. te ñoom la ñuy reetaan. ñoom ñu ngi naan pareeguñu desaat na donc mooy li ma la wax c'est-à-dire que. xam nga ñoom nag ñoo demoon tournée ji Iman ñoom lañu <laughs> defe naa ne est-ce que waa ji waa ji yóbbu matériel bi sax moom laaj na ko ko ci fay wala quoi que ce soit. yaakaaruma ko gëm naa ne gëm naa ne soxla def na ci lépp lu mu ci war a def daal pour que mbir na ko nit ñi jàngatee noonu te surtout na ko acteur politique yi xamee noonu itam léegi nag dama leen di ñaan bu fi kenn jéem a lancé cagnotte bu ko fi kenn jéem. pourtant de yow ci suba déggu kii sax daa lancé wu kii mouvement spontané bi ñuy ñëw dégguma ñu ne dafa am parti bu mag bu bu lancé cagnotte. kan la ñaata la. ah lancé cagnotte dama leen di wax. vérifié dugg ci yooyu. vérifié ma ñaata la bu ñu dugg ci yooyu bu ñu dugg ci yooyu. bu ñu dugg ci yooyu comme ça ñu méngale rek. Euh, ndax léeg-léeg euh, internet yi laaj ma ne ma na bu sondage bu Mamy Ba ndax duñ ko defaat quiz bi loolu nag day faral faral di raar du dëgg. waaw. quiz bi dinañ ko organiser nag waaye fu nekk nii il faut ñu bàyyi ba lépp lépp lépp taaju nekk ni ni kii foog mu foog mu taaju tuuti. amul benn ñu ñu lancé waat beneen quiz xool ba xam. Mhm. man sax man waa ji sant waat moom tamit moom fu mu toll moom moom échéance am bi moom waaye yéen kii baa du ñëw fekk e-, élection yi jeex. ah nabu kii baa du yegg fekk yaakaar ne dat bi yegg seegul fekk boobu <laughs> tànn nañu ba noppi. waajtaayam bi yàgg na de. ah oustaz waroon na fee nekk ba ko mu toll ba xam ah, nag lii mujjee bu fi kenn lancé cagnotte man conseil laa leen di jox bu fi kenn demandé mm-hmm. ay collecte de fonds mm-hmm. de toute kii il l'a même pas demandé mais je mm-hmm. ku ko ci mën a jéem itam di ko laaj ah damay ragal nga am gàcce de baal noonu rek dafa am lu lii daal dafa am ko ko moom daal te te am na yeneen dëkk yu des euh, ah, waa France dinañu dégg naa dinañu def ñu ah. seen seen seen seen seen cagnotte ah waa waa waa Angleterre dinañu def ah. waa États-Unis également euh, ñu ngi may <laughs> jox nouvelle yi en même temps mais bon ñu ngi xaar ñu ngi xaar maam yi ak cagnotte ñeneen ñëpp ku fi ubbi cagnotte rek ñëwal wax ñu ko ñu teg ko fii waa waa waa Pastef ëpp ëpp ñu leen ba leen di ëppale waaw cagnotte leen maa leen ko sant. waaw yow kan nga ciy waxal maanaam ah, yow tey jii sax nee na nee na eh waa eh, waaw. ma maanaam maanaam yow boo doon conseil benn poli pan ci politiciens yi. ñoom ñëpp ngay xool conseillé ko ne ko lancé defal ko rek. Ah, ñoom ñëpp moom mi 30 millions du ay faux campagne électorale. xaalis waaw amul 30 millions doo dem toog. ku dem kay ba war a bëgg bëgg bokk ci élection présidentielle ki dañoo jàpp war nga am 30 millions yoo teg. ah mais mami. non avec ou sans on se dit la vérité avec ou sans. ñu jàppale la wala ñu <laughs> ñàkk la <laughs> jàppale nga ne man damaa bëgg nga ne caution kay war nga ko am nag. dafa laaj dafa laaj xaalis bu bëri ajaratu. waaw raison de plus boo amul euh, xaalis mooy euh, campagne ci législative yi ñu génn gis naa ku daw ba yegg ci koñ essence am jeex <laughs> bu pànk <laughs> eh, nabu koor. waaw lu muy nabu foo gis loolu. nabu yow dooy nga waar nabu nag xoolal léegi nag je ne te permets plus ngay wax ay wax yoo xam ne amoo foo ko teg maanaam. billaay kan la kan la waa mais kan la kan la. moom dëgg la. oui d'accord mais kan la. kan la ah, maman stop baabu nee na wax nga dëgg de dëgg la. waa déedéet non man. moom lay waxal de yaa booy ñu ngi baax di la dama ne kan la ci kan kan moo daw essence am xoolal kaay ma wax la nag gis nga genre yooyu dafa jar wax nit ñi di ko xam. yaa ngi dégg. Mhm. on sait jamais parce que mën na am yow ki ngay wax xëy na kon man kooku laa bëgg a voter donc bu fekkente ni vraiment da ngay jëm élection présidentielle amoo moyen ngaa la demal nga toog élection présidentielle ay moyen la y en a qui y participent pour le CV mais euh, au-delà de tout cela c'est-à-dire que aujourd'hui tu dois avoir une certaine représentativité quand même et puis war nga mën a am sax benn mbooloo gu ndaw goo xamante ne ci ñooñu nga wéer sa yaakaar. nan ngay demee élection présidentielle nabu koor ñu xam ne 30 millions yow nabu koor am nga fit. xam nga législative amoo sax essence boo dawalee. am nga législative sax moo gën a yow est-ce que dal na xel pour defal. boo boo góorgóorloo tuuti am benn député ndax plus fort am na yooyu am na ah du dëgg mais man lii maa ko waa kan la. xamat fu ma ko fàtte ma fàtte. woo ko xam kan la ah yow mii man lii mosuma ko gis nii nga fi toogoon nga ne am na koo xam ne da jooy bu doon dajaleel matul muy jooy yow yaa ko fi wax. maan. yaa foo fi waxoon ma indiwaatal la émission bi wala ñu ne déet na waaye nga ne tey am na koo xam ne dafa daw euh, essence am jeex. dama ni dama ni nit ñi ñoo ko doon kókkali di ko dugalal ay juróom fukki dërëm ñaar dërëm. léegi mu Sénégalais des fois dafa fu mën kókkali bu xamee ne lii ngay bañ ah <laughs> mami tey nga dee moom ngay dégg chaque jour. waa kooku kan la. jamono jii nag ñu ubbi kañot bari na de ñu ngi may def siñ que ni ñu ubbi kañot dafa bari. Nabou Cor dama yaakaar ne buy def émission ay jinne dañuy wax ak moom. man ne mhm. lii mosuma koo gis. Alaaji Ngaale yow gis nga lii yow dama yaakaar ne ay jinne dañuy wax ak yow ñoo lay jox information yi ngay joxe. li ma lay wax ma mama mi li ma lay wax du dañ de. waaw d'accord naa. amul problème fii maa ko fi gis mu dawal yow ngaa la loolu gisoo. t'as pas vu ces images là daal ngaa la. jël clan euh, yeggal yoon ba. yow yaa gis candidat bu jël clan mu paan yéen am ngeen fit 2A TV. voilà mu paan ba pare naan dan dama paanoon ci yoon bi jël clan doo yeggal yi. li ma lay wax bu deñ finalement dañoom sax dañoo mujj di di dox. kon maa ngi dem ñu dem ci beneen bi mën ngaa wàcc kay. Mhm. ok mën ngaa wàcc nag wax dëgg yàlla li ñu war a wax ci émission bi wax nga ko li nga wax moo gën a garaaw ci li ñu nar a traité. Hmm? candidat bu dugg clando yéen am ngeen fit. <laughs> yéen am ngeen fit nag nit dina dem présidentielle di dugg kalandoo ah arrêté leen seen. non yaakaar naa sabotage peut fii ak présidentielle bi dinañu ubbi cagnotte boo xamante ne ñoom euh, ñi nga xam ne parce que. fii nag ku nekk am nga koo bëgg. nabu bu fi kenn ku nekk. Euh, nit bu bu am na fu muy toll foo xamante ne jaar local jaar jaar législative jaar yeneen ak yeneen. wax dëgg yàlla bu sampee ndëndëm ci présidentielle am na fu mu ko teg euh, am na nit ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom te dinañ cotiser bu leen def fukk ñaar dërëm ñeenti dërëm sinon ngeen ñaan waa boor bee ñu may leen ma ne alors ñu <laughs> daal di ñëw ci beneen point bi nga xamante ne moom lay euh, waxtaane <laughs> man baa li ngay def nag <laughs> ay ko fi créé tu mets en doute mi ay ku fi kañor kañor lu ba ñuy jàpp la ñii foofu ñu ne yow dama la da nga yaakaar ni ñii ci géem lañ ne. jërëjëf Ibrahima Traoré Serigne Bamba ñii foowuñu. ku fi kañor kañor Ibrahima Traoré nee na clando R4 la jëloon. bés bu sàmbay toog di ma weddi mais man internet yi duñ ma weddi dañu maa xalaat ñoom dañuy jëli te may waxee fii ñu àjji ko nii nii nii nii nii nii maa ko fekkee. man nit neexalu man man maa ko fekkee parce que législative yi. ay man j'étais sur le terrain. daanaka daawuma liggéey si donc ñu dem nañ dem ci beneen bi nañ dem rek dugg ci waxtaan baax li ngay def man mi bàyyi tiiñalaat loolu baaxul ayca ñu daal di <laughs> ñu daal di ñëw ci euh, beneen benn bëccëg moo ma teree nelaw bi euh, te il paraît am na foo xamante ne euh, je pense am na ku ko bind léegi nii nee na ñoom rek collecté nañu vingt et un mille vingt et un mille euros te ko. Ah, euh, kii la euh, Alsane Ndiaye nee na Firenze Firenze je pense c'est ça ah, yàlla baax na boo demee Alsane Ndiaye moom it ma nga fa woon. Mm-hmm. ma nga woon ca ndaje ma. Mm-hmm. Ah, yàlla baax na kon. Euh, eh. waaw mais ñeneen ñi nañu nañu kañoot nag nañu kañoot du dëgg alors ñu ñëw ci beneen ponk bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee